lu soxal ordre de mission yi direction générale des élections ñoo koy joxe organe de presse yi ko bëgg yooyu le organe de presse ñoom ñoo war a jox ordre de mission yi seeni taskatu xabaar yi nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk ci centre de vote yi bu amee nag boobule ordre de mission bu leen neexee ñu daal di voter ci bépp centre bi nga xamante ni nag foofu la ñu ne bu nekkee nag. yooyu les organes de presse ba léegi euh, jotaguñu seen ordre de mission mën nañ saisir direction générale des élections